parlons du candidat de de de Benno Bokk Yaakaar sànq wax nga ko nga ne Macky Sall dafa ne ñoom ñoo war a gëm seen bopp ñu wàcc xeex. parce que dafuñ fi euh, lu war a tax euh, sénégalais yi duñ leen euh, déglu. mu mel ni camp présidentiel bi fan yi sax tane na ak les dépôts des parrainages là y a eu un peu d'engouement. mais dafa mel ni camp présidentiel bi dañoo anesthésier. qu'est-ce qui se passe d'après yow qu'est-ce qui explique genre genre sedd bi ñu sedd. bon il faut dire d'abord que. affaire bi li tax mu mett ci Amadou Ba c'est que moo taxaw position favori objectivement ndax lan euh, moo yor appareil bi nga xam ne moo nekk au pouvoir fi ñu toll nii loolu la yàlla ba fi ñu toll nii di wax première force politique du pays fii ci Sénégal benn Bokk Yaakaar la élection yépp wane na ko boo jëlee élection locale yi nga comptabiliser communes yi comptabiliser vote yi y' match même boo jëlee élection législative yi nga contabiliser nombre de voix yi benn Bokk Yaakaar mooy première force politique du du Sénégal ba fi ñu nekk nii. donc candidat coalition boobu naturellement mooy nekk favori d' autant que dafa am ay avantage comparatifs par rapport ak ñeneen yi avantages yooyu bokk na ci ni moom. mooy premier ministre position institutionnelle la moom le président de la république di jàppale loolu benn avantage la ba pare ñi nga xam ni ñëpp ñoo yor communes yeeg maire yeeg Sénégal ñoo fi gañee nekk ay responsable politique de premier plan ñëpp ci moom la ñu àndal donc loolu sur le papier sur le papier moom mooy favori mais nag dans la réalité ci dëgg gi moom moo ëpp problème ñëpp. parce que moom opposition bi yëpp ay adversaire am la waaye ñi bëgg li ñu ko jox yëpp ci buur nguur gi aussi ay am la